lëkkale nag li nga xam ne moo xew fi mu toll nii ca àdduna yàq ci man. yemoo ceeb ku yàlla bind. dëgg la Cheikh kay. dëgg la. damay wax ni. waaw gars wala ñuy faj jinne di ko mbot di ko door na ñu koy def pour wér. wante moom da lay xool wér. mbokk yi borom xam-xam bu mag bi kat ñëw na di Serigne Cheikh Ibrahima Keita mi nga xam ne mooy sëtu Sunjata Keita xam-xamam màcc mu donn ko ci ay maamam ñëw na Ndakaaru te ma nga ca deux voies liberté si rond point ginnaaw boo weesoo camp pénal li muy faj bari na ku ami da koy faj képp ko xam dañ laa liggéey demal ca moom ku bëgg bayre moo xam nga bëgg a siiw demal ca moom képp kuy wut ay këyit mu jafale ci wàllu tukki mën na ko lii nga xam ne moo di ku tële di góor ci wàllu sëy man na ko jigéen joo xamee dooma la të man na ko góor goo xamante ni da bëgg am soxna wala soxna ju bëgg am jëkkër kii di Serigne Cheikh Ibrahima Keita moo ci gaaw mbokk yi dama ni képp koo xamante ni place ba nga ne da ngaa yaakaar ni dañ la faa bëgg a jëlee dawal gaar bu nga seeti Serigne Cheikh Ibrahima Keita di tradipraticien bu mag doon ko ci ay maamam Soundiata Keita roi du Mandeng mbokk yi numéro téléphone bi 77 664 92 92 60 76 136 78 30 70 750 xam-xam baa ngi noonu di Cheikh Ibrahima Keita loo fa indi bu neexee yàlla mu faj ko. xam nga Ibrahima Keita yow mooy borom ninki nanka yi. ay ayca bisimilah salaamaaleykum àdduna salaamaaleykum Sénégal salaamaaleykum yéen ñii di safoo di seetaan CIK TV Sénégal nee naa la Cheikh Ibrahima Keita mooy docteur le roi Mandeng le roi d'Afrique la xalif général de Sunjata Keita borom jinne yi borom bëri bëri benn fan c'est le marabout du peuple l'incontournable le phénomène le meilleur de sa génération ba tey mbokk yi ñu ngi fii ci kër ki nga xam ne nii mooy Cheikh Ibrahima Keita gëj ngeen koo gis loolu loolu mais nekk ci liggéey bi rek ak xat ak ñàkk temps moo ko téye mais mu ngi ci jàmm bu baax a baax a baax alhamdulilah mbokk yi namoon nañ leen jaar nañ leen ba tey gisati ngeen plateau bi waaw nee naa la mooy ka nga xam ne nii mooy kenn ki moom lu mu ne lii rek loolu day am boo tax moo waral lii nii témoignage ngeen amati waa ji ngeen di gis nii dafa am lu ko fii indi wax dëgg yàlla te nit boo ñëwee ci nit mu jëflanteeg yow faj la ba nga wér boo dee góor da nga ñëw toog ne ko ah man kat la ma doon yëg ak la ma yëg léegi alhamdulilah grâce à toi ba tax na ñu am ku ñuy dalal ci plateau bi sëñ bi ñu ngi lay nuyu. tur bi la yokkal kàddu gi. mën na leb sama tur bi. waaw mun nga leb sa tur bi lebal nañ nga ko. Ah. yow lan moo waraloon sa teewaay fii ci kër Cheikh Ibrahima Keita. waaw ah, dama amoon jafe-jafe pour quelque fois si si wàllu wërsëg bi. Hmm. ak wàllu yaram bi. Hmm. Ah, waaw lan moo nekkoon jafe-jafe bi wàllu wërsëg bi ak yaram bi yaram bi lan moo ci nekkoon lan la doon yaram bi. voilà daa daa daa waaw hmm. dama am ay da nga am ay jinne. voilà ak ak ak def-def sama yaram quoi. def-def am liggéey bu woon bu nekkoon ci sa yaram ak ay jinne. loolu moo la téewoon. waaw yow moo nekkoon sama yaram. yow fan nga fan bi nga xam ne ni loolu noonu mu ak fan nga yëgee ne mu ngi woon ci yow. man kay yàgg na ko kii du ko parce que am na ci ah, ñu bëri sax kii ah, pour wàllu faju ba hmm. waaye bu ma gisee kii bi ah, chèque bi si. YouTube bi loolu moo tax ma ñëw. loolu tax nga ñëw. léegi yow laata ngay ñëw ci Cheikh Ibrahima Keita am na ci ñoo jotoon jaar. waaw a ah jaroon na. bi nga jotee jaar noo noonu lan nga fa nemmeek ak lan nga fa gis ñi nga xam ne ñoo nga jaar. waaw ah, parce que man gisuma foofu lu ma lu ma war a kii quoi dal quelque part parce que moo après moo gisee service yi. surtout la la jël décision ñoom si. waaw ma ne avant laata ngay ñëw fii ci Cheikh Ibrahima Keita. Hmm. am na ci ñoo jot a jaar ñi nga jot a jaar ñoom lan nga gis ci ñoom nan nga jëflante ak ñoom ba tax nga bàyyi leen ñëw ci Cheikh Ibrahima Keita. non am amoo foofu résultat moom. Hmm, hmm, amoo foofu résultat. ñaata la bëri nañ ci ñi nga a jaar laata ngay ñëw fii. ci docteur waaw waaw ñàkk nga ci xaalis. waaw ñàkk na ci xaalis. lu toll na lu bëri wala lu tuuti. quarante cinq ay cinquante yooyu. ñu nekk ku nekk daal ak lu nekk ci yow ndeysaan dëgg la léegi yow ginnaaw loolu tey jii nii fi nga toll nii ba ñëw di toog di sant lan nga yëg sa yaram. waaw maa ngi yëg gis ci kii ci kii bi sangu bi jaaw jeexul. Ah. maa ngi yëg ci tànn. yaa ngi yëg tànn. te sangu bi jeexagul. maanaam yow bi nga ñëwee ci jaw fu nekk jaar nga fa am lu nekk sa yaram nga ñëw Cheikh Ibrahima Keita xoolal la mm. wax na li nekk ci yow. ba pare jox lay garab mais garab bi jeexugul te ni nga doon sant sa yaram nu mu demee actuellement. wa mo nga mo nga gis tan tan. ya nga gis tan bu baax a da nga doon am ay jafe-jafe aduna à part yaram wa kalko kalko kaliku fa sax kii. Mm-hmm. surtout wal wal ki fay bi ba kalko fa sa walu sax. Ah, su ki pour pour joxama daal dafa doon jafé man jafe. maanaam buntu wërsëg yi dafa tëjoo pour nit yëkkati jox la da fay jafé mm-hmm. laata ngay gis ak Cheikh Ibrahima Keita loolu ci yaram. voilà. Hmm. tey jii nag lan lan nu mu demee. waaw mu ngi tànn mu ngi maa ngi gis hmm. ci ñaata fan nga commencé gis na yow li nekkoon ci yow mi ngi day bi nga jokkoo ak Cheikh Ibrahima Keita. depuis waaw le 24 laa gis commencé kii. Hmm. voilà donc tey kaay. ba léegi maa ngi gis. ba léegi yaa ngi gis. donc moom diggante bi mu la joxee garab yi yàggul ñaari fan la gën ko bëri nga commencé gis euh, taw waaw. waaw lan ngay wax tey bii nii sa mbokk yi nga xam ne nii am na lu leen dal ñu ngi doxantoo feebar ñu ngi dem fu nekk ci àdduna te mënuñu wér. waaw waaw man kat li ma leen wax kat bu fante am am na wér ak kàttan ñu ñëw seet bi. Mm-hmm. waaw yow fi nga jot a jaar tey jii nii lan ndax foofu rëccu nga fa jëlee wala ak bi nga gisee Cheikh Ibrahima Keita fi nga jot a jaar lan lan lan lan la la def ci sa biir xol. foofu kay rëccu la ko jël kay waaw parce man kay. depuis que je ñëw Depuis dafa dal depuis nga ñëw hmm, donc yow on dit que ni tey jii nii personne nga boo xam ci hmm. société bi li lu peuple nga ci peuple bi. Hmm. nga di Cheikh Ibrahima mu am lu ci yow lan nga wax ci yow. def-def. def-def. ana def-def ngi ngi donc liggéey bu bon bi nekkoon ci yow Cheikh Ibrahima léegi yow dama lay laajaat rek ne fi mu toll nii boo gisee keneen kuy dem ci yeneen sëriñ yi ñu ne leen di ndax di lekk seen xaalis lan nga leen di wax. ah dama dama wax balaa ñu dem yàq sax ñu ñëw si kii sëriñ. ndeysaan yow fan nga gisee ak Cheikh Ibrahima Keita. man dama ko gis ci YouTube YouTube bi. Mhm. Ah. YouTube nga ko gis après. Ah, waaw. dama dama ko gisee après ma déglu waxam yi mu kontaan ma mu ne kii. mën na ko voilà waxam bi dafa ma kii doy quoi. Uh-huh. voilà pour ma ñëw seet ko. Uh-huh. Mm. léegi après nga woo. waaw ma woo ko bi nga ko woowee ndax amoon nga jafe-jafe pour jox ko ak moom. voilà parce que moom tam moom lu nekk si enferme. Mm. boo ko woo keneen du jël téléphone. Mm. moom rek moo jël jël téléphone am. la. wax la fu nga fu nga fu nga ñëw fu nga fu war a jël kii ñëw si moom. Mm-hmm. voilà parce que man kay sa bu ma ko woo rek moom moo ma jël téléphone kenn du ma jël téléphone. Mm-hmm. maanaam yow am na ñoo xam ne sëriñ ñoo xam ne daan nga jokkoo ñoom boo leen woowee keneen moo lay jël téléphone. voilà keneen ka mën a woo ñeneen sax ñeneen jël téléphone. Mm-hmm. ok wax wax ma par kële ko fa bu ma. am na ñoo xam ne sax bu ma demee sax mel nii mel ni ku ma ah, du kooku du sëy bi quoi. maanaam ay nax da ciy am. boo demee après da gis ne ñii dañ la doon nax. voilà parce que moom parce que ku ma ah, bu ma woo mel ni. ku mm. wax si rajo bi. Mm. ak kii ku ku def affaire bi quelquefois dafay may wuteel quoi. Mm. dama gis ñu wuteel. maanaam bu ma la déggee yow gars yi bu ñuy wax ci rajo bi. di tëll dëll ci internet bi ci télé bi di tëb nga dal. yow dalay ngay naan ñi ñoo mën boo demee nga fekk leen fa ñu nekk du ñu tous du ñu zéro léegi yow bi nga demee ci ñoon nga comparé leen ak bi nga ñëwee ci Cheikh Ibrahima Keita lal mooy différence bi ah boobu moom gis naa hmm. différence bu wax bëri bëri bëri lu ma kontaan si moom sax boo boo ko booyee si boppam hmm. moom moo la jël keneen du la jël moo la jox rendez moo hmm. boo ñëwee nga fekk ko foofu voilà dëgg la léegi yow dégg nañ kàddu yi macha allah di la ñaanal rek yàlla defal la tawfeex defal la jàmm ku la gis tey gis la keroog ba nga ñëw xam ne sonnoon nga waaye yaa ngi sant yàlla bu baax a baax a baax parce que for naa ci sa biir wax dafa am lu nekkoon ci yow ñii ñu ne jinne la ñuy wax lu nekk bi nga ñëwee ci docteur Cheikh Ibrahima Keita mu wax na li nekk ci yow te loolu la ba pare mu dind ko mu denc yow ba pare aar la ba pare sa bundu wër sa jaaree fa tijjee donc loolu sant yàlla bu baax a baax la macha allah docteur. naam euh, ñu ngi lay jaaraat bu baax le marabout du peuple l'incontournable le phénomène le meilleur de sa génération alaaji Cheikh Ibrahima Keita borom jinne yi. Mhm. borom bëri bëri benn fan boo ko nee naa la fu ne ngay dem ci àdduna fu nekk ngay wër dem ñàkk sa xaalis doo wër nga ñëw ci Cheikh Ibrahima Keita ci benn fan mu faj la kon macha allah docteur dundal sa dund suñu njëriñ la. cheikh bi ñu ngi lay nuyuwaat di la ziar di la ndokkeel. alhamdulilah gannaaw ba ñu santee yàlla. Mhm. ñu ngi julli ci yeneen tàmba di gërëm suñu maam Sunjata Keita mhm. di nuyu quinze millions d' yi nekk ci Sénégal. Mhm. góor jigéen mag ndaw. Mhm. waaw waa ji xëy na olof bee leerul. dëgg la olof bee leerul. moo tax mënul expliquer lépp li ko dal. dëgg la waaye yaakaar naa li wax leer na. Mhm. kii li ko daloon mën naa ne na bu tukki la. ndeysaan. ndax aduna bu tukki weesuwul wër ci fajkat yépp fu ne nga joxe fa xaalis mënoo wér. wër ci kat yépp xam ñan ñoo ñi mën ñi ak ñu mënul ñi yàlla tey gi xirtal ko ci man ci Ibrahima kayta oh. garab bi ma ko joxoon jeexagul ndeysaan dëgg la garab bi ma ko joxoon jeexagul première bouteille bi ma ko jox jeexagul jeexagul wax na ko ndeysaan wax na ko ah. par 9 jours euh, moo des mm. voilà ndeysaan pour garab bi jeex pour garab bi jeex kon xam nga la lay jëriñ uh-huh. nekkul ci comme li may wax rek uh-huh. saafara maanaam jàngoro uh-huh. ke Ken du ko traité. deug la imaginer garab biñ ko jox jeexagul ki walu mhm. bu weesoo walu walu walu wërsëg ak yoy li ko mhm. dalon ci ci ci yaram bi. dem ak ay jinne ak yoy yëpp. Mhm. te lolu nee la lu may ku ko don munu ko fajj deug la man Cheikh Ibrahima kayta dindi ko te garab ba ko jox jeexagul. ben ñaar ki lenn li ko dalon li gëna graw ci li dal moy walu wërsëgam. pour mu am problème la. fa mu daan liggéeyee mhm. maanaam bu weer deewee moom la ñuy mujjee fay mais yoon bii moom lañ njëkk a fay est-ce que gannaaw ba mu ñëwee jokkoog gannaaw ba mu ñëwee jokkoog man mu ngi fi ñëw la vingt-quatre lañ ko jox garab uh-huh. weer bi dafa dee tàkk ñu fay allahu akbar kon xam nga lool moo lay wan ni la lay jëriñ nekkul luy yàgg. dëgg la dëgg la waaw mbir yi ko daloon yi dafa bari. mu jaar fu ne. Mm. dem fu ne. Mm. muy ñëw ci man amuloon benn yaakaar. ma xamal ko ni incha allahu taala. Mm. la ñuy defal jaamu yàlla yi ñuy gis. ñu uh-huh. toog di ñu témoignage. Uh-huh. yow doo ñu tëx. ndeysaan waaw moo tax fi ñu jaar ak moom. ndeysaan gis nga daf ma teel a uh-huh. mën naa ne ci deuxième jour xaw ma troisième jour cheikh garab yi baax na alhamdulilah rabbil alamin ma ne ko gisagoo dara continuer ko gannaaw garab yi jeexagul mm-hmm. da gis ay mbir yu la yéem ci li la gënoon a jafe loolu dana wëlbati ko yomba kon alhamdulilahi rabbil alamin duñ def lu may sant yàlla uh-huh. te di wax itam lii bokk na ci lii seddal suñu xol ñu defal la dara nga gis ci ndam ak résultat mm-hmm. ñëw yeggee ñu ko day sedd suñu xol te ñun dara mun dara munta nëbbu ci ñun uh-huh. ndax ñun ñoo la jox la lay ubbi boo oh. ubbeekoo rek ñun ñoo lay jëkk xam ne ubbeeku wallaahi kon waa ji fi ñu jaar ak moom mooy fi ñuy jaar ak patients yi fiy ñëw rek ndeysaan waaw sant yàlla rek te di ah. wax xam-xam nii lay mel dëgg la dëgg la ah, ndeysaan day dëgg ndeysaan macha allah Cheikh Ibrahima Keita dégg rafet na kii tam dégg nañ lu mu wax mhm. maanaam euh, lii bu amee rek ñun mooy que ni dañuy firndelaat àdduna firndelaat mhm. population bi ne leen mhm. buñ naan c'est le marabout du peuple lii moo tax buñ naan bëri bëri benn fan lii moo tax bu ñu naan Cheikh Ibrahima Keita traité du traité mu patient du jaabante këram gauche droite lii moo tax wax dëgg yàlla li ngay ñëw dangay ñëw mu jokkoo ak yow wax la la ne ci yow. Uh-huh. dindi ko mu dañ ba pare nga dem ba pare am tawfeex santaat yàlla bu baax a baax ñoo toog di gërëm. mais cheikh yi ñu am loo xam ne aussi nemmeeku nañ ko. Uh-huh. que ni yow nit dana feebar. Uh-huh. jaar fu ne fu ne mu dugg fa. mais bu ñëwee ci yow. la première chose bi nga xam ne nii moom la ñu remarqué mooy da ngay dindi li nga xam ne nii moo nekk ci moom mooy tooke bi. Mhm. maanaam liggéey yu bon yi nekkoon ci yaramam parce que dañu seetlu ne souvent ku dem mhm. yëpp ci ñoom. Mhm. ana lan ban ban jafe-jafe ngay am ci loolu noonu. pour boo koy ci li nga xam ne nii mu ngi si seen yaram. xam nga mbir mi nekkatul jafe-jafe ndax li nga xamante ne moom nga nàmp. xam ko maîtriser ko. dëgg la ay résultats. day mel ni maanaam def ak dindi bi nu mu yombee ci làmmiñ noonu lay yombee ci ñun jëf bi noonu lay yombee ndax mën naa ne nit dana ñëw ci ñun comme kii mm. dañ koy maanaam dañ ko doon njaaba njàlle ci entre dëmm ak jinne du ñu xam lan moo ko ci téye même ay def-def dafa nekkoon ci moom dëgg la man ma ko xoolalee lépp luy kale nit gis naa ko ci moom ba tax na ma ne ko yow lii moo tax mm. bu ñuy fayee sax yow la ñuy mujjee fay wala amaana maanaam moom sax moo ne maanaam ñu koy fay day fekk beneen weer bi dugg na. allahu akbar est-ce que comprendre nga. loolu lañ naan yaram bu tëju. Mm. wërsëg bu tëju ràpp. Ah, ndeysaan. da ngay mel ni ku ñu fàtte. Mm. te doon da nga ni yaa ngi ci biir société. waaye man Cheikh Ibrahima Keita loolu dama koy dindi vite fait. dëgg la ni mu gën a gaawee day mel ni yëre boo soloon rek. ndeysaan ñu summin la ko lem ko. def ko ne leen. wallaahi waaw ñu am la beneen yére boo xamante ne nii. كولا جيس بغلا كولا جيس وولو لا ليني ييني غور يي بو نلاجي سي ييني لا لول لاني ديف تي موم اولافا مو ليرول با تخنا مونتا واخ لب لب لب لب لب مي ياكارنا لام واخ دغ نين كو موي ني توك سانتنا يالا لا لا li nga xam ne nii moom ngay tey sa yaram ak ni nga xam ne nii noonu nga meloon bisimilah ñu dem. nga amal tante ko pare ñëpp naa Cheikh Ibrahima Fer. Hmm. ok nga xara jiga ko baara la ko. sisan kɔni ne bɛ ala tante ko sɔn. ne fura sɔrɔ mɔgɔ mɔgɔ n'i bɛ se ka na kɔni i kana sek sek yɔrɔ la kɔ. Hmm. dama bëgg nga wax ma. kan mooy sëtu Sunjata Keita. Sunjata Mamari le hmm. Cheikh Ibrahima Keita. ndeysaan bon o la yɛrɛ ne tun la ala sa. kala afra kala ko wala ko wala to ne nare sa kana ko nda sa ala sunjata ala stora ma to mo sila afra kono ali mali amba me amba ali ne sa ko chambala ala programme nga tala sar sa sa wala nga aldon ko jabe wala wala to wala no to sewa sankana sa ke wala ndeysaan ndeysaan macha allah ku la dégg nga xam ne xol bi fees na kontaan nga parce que fu nekk dem nga fa comme ni ñu koy waxee gars yi di la ping pong di lekk sa xaalis di la nax comme ni ñoom noonu lañ koy defee ñoom da ngay ñëw ñu xool li nga li gën a baax ci yow wala feebar bi gën a bon ci yow ñu teg la ko nax la lekk sa xaalis mais nag fii nee naa la ni ñu koy waxee rek magum jëm moo fi nekk sëriñ bu wér moo fi nekk le marabout du peuple moo fi nekk mooy Cheikh Ibrahima Keita fu ne ngay dem fu ne ngay jëlee feebar mu ñëw nga ñëw mu faj la nga wér ci benn fan kon Keita dundal. sëñ bi ngay ñaanal Cheikh Ibrahima Keita. Ah, maa ngi a ñaanal gudd fan ak yi rafet na macha allah ñoo ko déggandoo mbokki àdduna mbokki Sénégal nee naa leen kii mooy docteur El Hadji Cheikh Ibrahima Keita le marabout du peuple l' incontournable le phénomène le maire de sa génération Cheikh bi. naam ñu am loo xam ne tamit nemmeeku nañ ko docteur. Mhm. ah ne yàgg na sax mais day baax ñu ci ñëw chaque jour di wax. Mhm. chef bi dañu gis ne yow ku ñëw rek. Mhm. Euh, day jógee feneen moom mi ñëw sax du xam li ko li nekk ci moom. parce que ku ne dina ko jaar. gars ne ko lii moo nekk ci yow moo nekk mais yow ku ñëw da nga naan lii moo nekk ci yow te effectivement loolu lay doon. parce que man toog naa nga woo ma patient ne ci néeg bi nga ne ma Saliou kaay ma ñëw. nga ne ma diw lii moo ko dal lii ak lii nii moo ko dal. te ah. kooku day toog confirmer ne effectivement lool la. ana lan mooy waral lool noonu. Mm. ma xamu boobu nan naka la. sëriñ di def ba am ko. waaw mooy li ma la wax rek. Mm. gis nga mbir boo bëggee mu antu. Mm. boo bëggee ñaan muy wér. Mm. da ngay seet nit ki la ko dal. lambaatu. erreur rek lay jural doomu aadama. ñun ñii bu ñu ñëwee. dañuy diagnostiqué yebal suñu jinne yi nga xamante ne ni ñoom ñooy diagnostiqué di saytu di xool. jàngoro yi nit ki. ak aado yi nit ki la koy faj. ñu wax ñu ko su ko defee. bu ñu génnee wax nit ki ni carrément lii moo la dal. Mm-hmm. te loolu du deñ. ndeysaan képp ku ma mos a seetal li ma la wax du deñ. ndeysaan kay waaw moo tax bu ñu fajee rek dañuy jubal direct ca lay saafara. Mm-hmm. ndaw si wala waa ji. Mm-hmm. ñu saafara ko. ndeysaan loolu rek la seet daal mooy jiitu ci faj. dëgg la Keita ba tey Cheikh Ibrahima Keita am na loo xam ne aussi nemmeeku nañ ko. mooy jafe na loolu nit nekk bitim réew nga nekk fii Sénégal. mu jokkoo ak yow mais nit day nekk bitim réew ci feebar bu mais pour jokkoo ak yow nekk bitim réew moo xam problème mu këyit la moo xam problème mu liggéey la moo xam problème mu moom njabootam la nga toog fii nii defal ko ñaan loolu saafara. ana lan mooy waral loolu. non mooy loolu mooy xam-xam rek. gis nga xam-xam di distance. Mhm. da ciy feeñ. dëgg la nit ki li ngay woote bu dee dëgg la ci yow. Mhm. maanaam patient bi la jege ak ki la sori ñoo war a yem ci yow. ndax lay antul ñaan boo ko defee ci ki nga ki nga xamante ni daf la sori. Mm-hmm. aajoom day antu. boo ko defee ci ki la jege aajoom day antu. yor lu wér daal mooy lu wóor. wallaahi te loolu mu ngi ci ñun. ndeysaan waaw kay loolu la. macha allah docteur El Hadj Cheikh Ibrahima Keita nee naa la mbokk yow boo amee jafe-jafe këyit wala nga bëgg a wala jigéen bu bëgg jëkkër wala góor bu bëgg soxna. Mm-hmm. da ngay jokkoo kii di Cheikh Ibrahima Keita rawatina góor boo xam ne nii da nga boo ñëwee jox ko Cheikh Ibrahima Keita ba mu jox la volcan bi di nga xam ne kii mooy le roi des rois mm. c' est le roi d' Afrique c' est le roi Manding le docteur Alhaji Cheikh Ibrahima yi le marabout du peuple mm. mbokki mbokki Sénégal yéen a ko déggandoo li moo nekkoon témoignage bi nga xam ne ni moom lañ leen doon amal fii ci CIK TV Sénégal mm. fa nga xam ne mooy chaîne bu mag ba mooy chaîne ba nga xam ne nii mooy chaîne bu baatin ba seen ba ngay wéree seen ba nga xam ne nii lu la mënti dal boo jokkoo borom da am tawfeex cheikh bi ana lan ngay tàggoo ak askan bi waaw di ñaan jàmm rek ci réew mi. Mm-hmm. di ñaanal patients yi. Mm-hmm. di leen xamal ni Cheikh Ibrahima Keita mu ngi fi demul fenn. dañu nekkoon ci ay mm-hmm. waaw waaye ñu ngi fi demuñu fenn. di ñaanal ñëpp jàmm. di séntu ñëpp di xaar ñëpp di ñaan yàlla yàlla def jàmm ci réew mi. amiin amiin yaa rabbi amiin yaa rabbi mbokki àdduna mbokki Sénégal kon yéen a ko déggandoo docteur a ngi mu ngi fi mu ngi ci liggéey bi macha allah mu ngi ci jàmm bu baax a baax a baax alhamdulilah mu ngi ci ñin ñi gars yi ngi ñëw mu ngi faj muy wér comme d'habitude rek ñu ko mm-hmm. defee moom nee naa la ngi leen di sant di leen jox rendez-vous ci beneen plateau incha allah rabbi fi nga xam ne nii mooy CIK TV Sénégal jërëjëf góor gi tële nag li nga xam ne moo nii ci man. yemoo ceeb ku yàlla bind. ñuy faj jinne di ko mbot di ko dóor nu ñu koy def pour wér. wante moom da lay xool rek nga wér.